suis le président de la république euh, Macky Sall euh, parce que nous projet au niveau de Touba le département de Mbake. Euh, avec le ministère de l'intérieur nous Safe City Madame avons nous un superviser en tout cas lépp axe stratégique qui donc Touba

loolu nak dafa bokku ci programme bi nga xamantene le président Macky Sall def ñuko ko ñukoy doxal ci Sénégal yëpp euh, rawatina nak fi ci Touba nga xamantene vraiment président Macky Sall dafa wax ñu def fi en tout cas lepp luy effort pour mën connecter dëkk bi pour mën permettre vraiment Touba mën a bénéficier wu ci infrastructure yu mucc ay bi nga xamantene ne ñu koy déployer ci le projet Smart Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp. loolu nak ñu ngi siy liggéey bu baax parce que bo xolé Touba euh, danaka fibre optique bi nga xamantene dañu koy déployer yegg si na fii depuis euh, maintenant un an boo xamante déployer nañu fibre bi bu bëree bëri su melni commissariat yi su melni hôpital bi nga xamantene ne euh, moom la ñu di di tabax loolu yépp ñu koy def pour wax ne que Touba comme nu ñu koy défé ci projet Smart Sénégal bi service su état yëpp dinañu leen connecter ak fibre optique donc ñoom ñëpp dinañu disposer donc euh, de haut débit vous leen nous permettre non seulement ñu mën a jokkante ak service état yu Sénégal mais également ñu mën une connectivité internet bu pour mën a def